sëñ bii Elimane Sall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay njiital kuréel gi ëmb sénégal yi nga xamante ne kon ay locataire lañu dañuy yëngu kon ci wàllub location ñoo gis ni ci wàllu wi gouvernement bu Sénégal jaarale ko ci secretaire d'État bi yor wàllub kon dëkkuwaay ne kon dina am lu ñuy soppi ci loi 2014 bi nga xamante ne moo addu euh, ci wàññi teg location bi ci Sénégal ba xam réforme boobee yeneen ko doon xaar. waaw ñu ko doon xaar nag ndax euh, euh, ku waxal yàlla xam ne locataires yi sonn nañ. sonn nañ ndax euh, boo xoolee 2014 dañoo wàññi woon luyaas bi mu indi woon coow lu bëri am ñu ko respecté am ñu ko respecté wul juróom-ñaari at ci ginnaaw mooy 2014 ba mille vingt 2021 tey bu ñu doon def bilan dañ naan bilan bi daanaka dañoo lajj lajj gi mooy euh, lañ te doon séntu amuñu ko ba pare location bi dafa gën a cher tey boo doon xool luy jar cent mille wala cent cinquante mille dem na deux cent mille deux cent cinquante mille kon euh, locataires yi dañoo gën a sonn te am-am bi topp ci donc lii ñoom ñu dem ba seetlu ko ginnaaw ñun bu ñu continuer di alerter di ci wax ndax ay la yéwén ñun mosuñoo noppi ñu ngi wax ci presse bi ñu ngi wax ci fépp foo xamante ni nii suñu voix mën na faa egg ah bu ñu demee ba décider ne dañuy revoir loi boobu du ñu mën rek lu dul rafet rafetlu ko di xaar nag fan la wànnant di mujjee ki gëtëm ndax itam euh, loi baax na lool décret baax na lool waaye ña nga tax nga koy jël ñu yëg ko sur le terrain moom moo gën a am solo te defe naa ne balaa ñooy génne loi balaa ñooy jéem a euh, jël décret nañu étudier li nga xamante juróom-ñaari at ci ginnaaw defoon nañ ko te mu laj ñu évaluer ko xool problème ya ca am soo koy mën a jëlaat yeneen décision lu ko mooy dinañ jëlaat yeneen décision teg ko ci loxoy nit ñi waaye du jariñ dara parce que dinañ utaat yeneen euh, euh, prox ndoll pour contourner ko ba mu échouer donc loolu daal Euh, ñun ñu ngi ñaan yàlla mu egseeg jàmm te bu ñëwee itam na arrangé locataires yi parce que li tax ñuy wax aussi du suñu bopp mhm. mais pour locataires yi la pour ñi nga xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe la gannaaw kon 2014 ak léegi def na juróom-ñaari at waaye mu mel ni nemmeeku bi mooy location bi njëg li dafa gën a yokk sax ah, boobu ak léegi lan ngeen ci gis tamit ci beneen fànn bi ni euh, loi bi indi na ko lu baax waaw loi bi daal li mu indi ci lu baax mooy ca début ba am na ko respecté woon ndax daanaka dañoo ragaloon Euh, loi bi indi na euh, loo xamante ne ni tout le temps nit ñi dañ ciy wax boo euh, toog weer wala ñaari weer yoo déggul ñu soulever waat question bi te laa naka loolu association bi rek moom moo ciy yëngatu di ko def. Hmm. doo toog te amul situation bu injuste boo xam ne nit ñi demuñ ci rajo yi wax ko mais avant loolu daawul am kon loi bi côté boobu baax na fi. loi bi nag li mu bonle moo ëpp li mu baax le ndax ba mu borom kër yu bëri dañ ne état tabaxulu leen seen kër mënta wàññ seen loxo pour ñu wàññi kër ya dëgg la waaye activité commerciale la ñuy def bi ci gañ xaalis te bu fekkente ne yaa ngi cim réew ut say immeuble te léegi étranger yi ñoo ci gën a bëri dañ ko investir boo xoolee indiens yi marocains yi étranger yi bëri actuellement ñoom moom immeuble yi nekk Dakar bi ci ut xaalis hmm. bu état bi contrôlé wul dañuy jël population bi kuttu leen noot leen jël seen xaalis ba pare ñoom duñ mës a am kër ba ba keroog ñuy ñuy ñuy ñuy retraité wala ñuy sàngoo suuf donc yoon la pour que état jël secteur boobu en mais xool naka lañ koy mën a réguler parce que ñu ngi def ay pétition euh, di ci wax le temps di créer ay mouvement mais loolu yëpp du ko régler tant que état amul volonté politique def benn organe de régulation nga xam ne fépp foo xamante ni nii mbiru luyaas am na fa dina ci teg bëtam vérifier ko contrôler ko daanaka problème bi luñ ci mën di jëlit daanaka du du du ko régler définitivement. laata organe de régulation boobu lan nga jàpp ni moo sooxee yëf yi ba xam ñàkk suivi bi la maanaam topp ba mu sës bi état bi war a def wala ah, ñoom bailleurs seen wàllu bopp ñooy nas seen i pexe ngir kon di wër ndomb loi bi ñu fi samp di kon gën a yokkal loi location bi. waaw ragal naa ñaar yëpp la ñaar yëpp la état day jël décret rek wala loi parce que loi booy xool loi am ci loi yi loi yu dëgër la loi yu yàgg la ci senegal hmm. at mu jot dañ koy réviser defar ko defaraat ko hmm. waaye euh, bu fekkee da nga jël loi teg ko ci euh, benn secteur te suivre loo ko te secteur bi di génne alal dul jeex ña cay am alal loi boo mën di teg dinañ seet nuñ ko contourner yow nag yaay xool porox ndoll yooyu nga fatt ko yow état hmm. fatt ko ba ñoom dinañ ci mën di gagner parce que ay sénégalais lañ comme ñun dañoo investir war a am xaalis loolu ñun d'accord nañ ci waaye itam nañu def lu raisonnable ba ki nga xamante mooy loué bu weer dee mu mën a am lu mu teg ci gafakaam à côté pour moom it mu mën a am kër waaye boo seetee ni muy doxee état da bàyyi borom kër yi ak agence yi ñuy doxalee nu leen neex ah locataires yi di jooy fu ñu dem ñu ne leen yéen a fayut wala vous êtes de mauvais payeur wala ñu leen di traité noo xam ne naka sudul noonu état di seetaan donc état dafa seetaan ba situation bi ëpp ko loxo mu soog a mu soog a jóg donc ñun li ñuy ñaan rek mooy ñu jël secteur bi jël ko en charge parce que boo xoolee ci mbas mi bi ñu leen bëggee dimbale dañ ne xamuñu locataires yi nu ñu tool mais loolu gàcce la ci état. Hmm. quartier bu nekk tey waroon nañ fa def ay bureau d'enregistrement euh, euh, contrat de location yi de telle sorte que bu ñu jógee rek bu ñu nee euh, euh, Grand Yoff dinañ xam ñaata lo kër ñoo fay luy ak ñaata locataire a fa nekk bu ñu nee Médina dinañ xam parce que dañ koy enregistrer dañ naan bërëb sàngam ku fa contrat jaarul contrat bi baaxul te bis boo ame problème ak locataire dinañ la redresser sur le plan fiscal mais état il faut mu am volonté bi def ko ba pare euh, locataires yi jàppale ko ci itam borom kër yi itam xam ne ñoo bokk réew mi ñoom mën nañoo ut xaalis convenablement te ñu gaañ locataires yi euh, defe naa loolu daal mooy solution bi Hmm. alors ci topp bi tamit gisoon nañu ci njalbeen état bi dafi sampoon ab numéro vert ngir kon euh, ñi daal di yoole ñi nga xamante ne ñoom ñooy lànk euh, ci kon wàññite gi waaye euh, boobu léegi ñu gis ni kon yenn saa yi nit ñi duñu ko jëfee ba xam tamit ci wàllu woowu clients yi amuñu ci part de responsabilité. waaw xam nga clients yi moom li ñuy wax ci tubaab ils ont bon boo waxee rek ñu ne non locataires yi ñoo deful nañ war war a def képp koo xamante xam nga noo xam ne boo ko defee. ah sa loyer dina jaar yoon ñu respecté la mu wàññeeku di nga ko def mais benn numéro vert boobu ñu defoon ca ba ñuy soog a wàññi luyaas bi ci waxuma la Sénégal Dakar rek numéro vert boobu attanu ko. Hmm. Médina rek la fa nekk ci locataire numéro vert boobu day saturé xam nga ne tey euh, seen serveur boobu tey ku fi bëggoon di dugg di woote. Hmm. bu amee nit yu bëri yu duggandoo day saturé. Mm loolu la ca ca ca ca début ba. don na dox ñu tax teg fi ay affaires yu yu yu mucc ayib di ko suivre mais daanaka euh, après dafa mujj nax saay boo hmm. wootee ci numéro vert bi sax doo jot doo mën a dugg da ngay daal di découragé ah bu dee da am contentieux nga dem tribunal yéeg wàcc ñu génne la nga dem uti feneen. Hmm. donc état il faut moom xam na depuis sept ans lan mooy problème bi buñ ko saytoo. Hmm. mais nii ñuy doxalee nag moom man rafetuma ci njort. parce que tëju ci seeni bureau rek ne ñu ngi revoir loi bi. dañ koy revoir génnewaat ko teg ko ci ci ci ci ci ci ci ci réew mi ku nekk jëfee ko na la neex. Mm-hmm. man li ma gisoon mooy ñu jël sek con euh, acteurs yi nga xam ne ñoo bokk ci secteur bi muy borom kër yi muy agence yi muy locataires yi ñu waxtaan ak ñoom ba tënk xam lan mooy problème yi ñoom nag bu leen neexee bu boobaa mën nañoo tëju jël seeni mesures mesures yoo xam ne buñ ko tegee yu mucc ayib lay doon. Mm-hmm. waaye bu fekkente ne nit ñi coow nañ rek nga gaaw génnewaat décret ñu wax ci quelque temps mu jeexaat problème ba dafay nekkaat rek. Hmm. te bu boobaa itam euh, euh, état lajj lay doonati te état buy lajj tout le temps nag finalement day nuru tayeef. ci mbir mi monsieur man Sall est-ce que yow ak ñi bokk ci association wéetu leen ci xeex bi. waaw weet nañ weetuñu weet bi mooy amuñu dooley euh, li nga xamante moom lañu sëmb ci ci xeex ak ci li ñu bëgg a def ci liggéey. ay la yéwén euh, du benn dërëm boo xam ne dina joge fenn di ñëw ci ñun comme dimbal euh, li nga xamante ni nii moom la def it dañ ko gëm di ko def ndax euh, dafa am benn mag boo xam ne bi ma demee ba affaire yi sonal ñu ñu dem mu ne def leen jàpp leen ne mission divine ngeen di def benn nit sax bu ngeen ko dimbalee. Mhm. defal ngeen yàlla ku jaaxle daw ci yéen ngeen xelal ko gindi ko ba mu ba ba xelam ñëwaat. loolu liggéeyal yàlla la kon sacerdoce lañ ko def lu ñu gëm la di ko def amuñ ci xaalis wutuñ ci xaalis contrairement nag ak ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi agité wu di dugg ci ci secteur bi ñu ci bëri xaalis a leen tax a jóg nañ def attention dañuy dem di laaj locataires yi xaalis naan leen dañ leen di lijjantil ay dossier lekk seen xaalis te du tere di leen leen expulsé hmm. donc il faut que effectivement mu nekk bénévolat nga xam ne da lay leer ne da ngay jóg pour dimbale locataire bi conseiller ko orienter ko bu jaree sax nga gunge ko tribunal nga gunge ko fa ñun am nañu ki topp ci man di vice président bi mettre Bassirou Sakho la tudd bureau am fay recevoir ci ay dossier kenn xamul nu mu toll te li ñu mën rek la ñuy def nag mhm. tribunal dafay dem di layool ay locataire gratuitement di leen jëndal ay timbre sax pour seeni dossier donc ñun li ñu mën ñu ngi koy def a ah, li ci des nag doole jooju état ko am nguur ko am mais na accompagner nit ñi ñun ñu xaalis laajuñu dara nañu mettre un dispositif de suivi rigoureux même si le faut ñu créer observatoire ut ay police des loyers ut ay bureau d'enregistrement vraiment ñoom xam na nan la ñu war a def pour que ñu mën a organiser secteur bi mais di jël ay rek ay loi rek loolu réglé wul dara. nemmeeku bi tamit mooy bu ñuy wax euh, location rek xel yëpp ci ndakaaru la jëm mais ba xam yéen a ngi gëstu tamit liy xew ci biir réew mi ci gox-goxaan yi ak li fa locataires yi di dund. waaw xaj na boo gisee wax ji bëri Dakar rek euh, am na njàngat boo xam ne Euh, agence nationale statistique euh, def nañ ko ñu ne téeméer boo jël juróom fukk ya ak ñeent ak lu topp euh, dañuy fay luyaas fii ci Dakar kon Dakar la gën a wulee ñaay waaye terewul itam ak moyen yu modeste yi ñu am am nañu ñu ñu teewal Mbour am nañu ku ñu teewal ci Saint-Louis am nañu it ku ñu teewal ca Thiès Ah, muy eh, eh, ay gox yoo xam ne mbiru ba ba Kédougou ba Kédougou ak eh, affaire Sabadola bi nga xam ne daanaka location tim daf fay yéeg ah mais daanaka li ñuy dund Dakar lañ fay dund rek tey jii boo demee Kédougou suñu représentant bi nee na deux chambres salon daanaka boo amul cent vingt cinq mille doo ko am kon xooku xam nga ni mu ngi dab si Dakar. Hmm. kon bu ñu jëlee Mbour suñu représentant bi ak pandémie bi secteur hôtelier bi ñu bëri fi mu ne ña fa ci ay jafe-jafe. ndax ñi doon liggéeyee ci hôtel yi ñu bëri dañu arrêté. Hmm. kon am nañu ay représentant ci zone yooyu ma la wax euh, ñu ngi ciy def it lu ñu mën di ci waslu suñuy àq waaye euh, il faut que état jël mbir yi en charge comme ni mu koy defee ci yeneen secteurs yi ak ñun ñu accompagner ko soxlawuñ ci dara parce que kenn ku ci ne am nga sa liggéey ñu accompagner ko jàppale ko pour que population yi en fin de compte ñoom ñu mën aussi dajale as tuut pour jënd seeni kër parce que le problème à long mooy rek. ñi nga xam ne dañuy loué ñu am seen i kër ñibbi ca pour mën a euh, génn ci location mais tant que defuñu loolu jafe-jafe bi daf fiy nekk di persister ñoom it ñuy jël ay décisions yoo xam ne daanaka kenn du ko respecté. waaw ci ndorteelu mbasum Covid 19 bi njiitu réew mi Macky Sall jëloon na ab dogal ne kon dañuy dakkal euh, bépp dàq maanaam euh, ñuy expulser ay locataires yi nga xamante ne ñu nekk ci ay jafe-jafe ak seen i bailleurs ba xam dogal boobee ba tey ñu ngi koy jëfee ci Sénégal ak état d'urgence bu ñu nekk tamit ndax mbas maa ngi fi ba léegi. waaw li lay wan incohérence yi loolu rek la ñun ci mbas mi bi mu amee ñun ñoo génn wax bind. xam nga nag da di lu ñu def rek du ñu wër ci presse bi naan def nañ lii def nañ lii ndax. du doxin boo xam ne méngoo na ak nit ki lu mu gëm di ko def. Hmm. mais ñun ñoo bind président bind ministre de la justice am ñoo xam ne jàppale nañ ñu foofu euh, ba président ne bu ñu génne kenn euh, loolu ñun ñoo ko ñoo ko ñaanoon ñu may ñu ko. waaye itam euh, dafa nekk saafara bu jur jàngoro ndax buñ ne bu ñu génne benn locataire ñi nekkoon en chômage technique ñi nga xam ne seen liggéey dafa yàqu woon ñooñu fayuñu parce que jugé wuñu woon tribinal pour génne leen mais bi loi d'habilitation bi jeexee ci euh, vague bu njëkk ba automatiquement borom kër yi tribunal dafa ubbiwaat ñu yóbbu dossier yi assigné leen ñoom ñëp ci huissier yóbbu ko euh, euh, tribunal ñun bind nañ fan yële ci ginnaaw bi nga xamante ne ni ci benn fan rek atte nañ fa lu ëpp mille et quelques dossiers fi mu ne talaata bu jot wala ajuma bu jot bi nga xam ne ci la ñuy atte locataires yi boo deme tribunal d'instance bu Dakar Pikine Géejawaay nga dem Rufisque li fay atterrir ci taabalu juge yi daanaka dina nekk entre sept cent ak mille dossiers yoo xam ne dañ leen a bëgg génne parce que dañoo am problème paiement kon nit ñi nekk nañ ci ay jafe-jafe te ay la yeween koo xam ne dëkk nga ci kër fukki at wala lu top di fay régulièrement mbas mi ñëw nga nekk ci jafe-jafe borom kër ga war na laa comprendre defal la moratoire booy fay nga ciy teg dara ndànk-ndànk mais ñu yore arrière yi ñëpp ñu ci bëri seen dossier nga tribunal parce que loi d'habilitation bi bi mu jeexee loolu président jëloon dañ ko euh, dañ ko dindi hmm. la gënoon euh, euh, yenu maanaa nag mooy hmm. comme fi mu ne xam nañ nombre bi nekk tribunal ci ñu ñu war a génne mais ni ñu dimbalee yeneen secteurs yi nañu dem ñooñu nga xam ne ña ay jafe-jafe ñu jox leen ci xaalis bi ñuy milliards yu bëri yi ñuy wax dimbale leen hmm. su ko defee bu ñu leen fayalee ay weer ñoom dinañ mën a continuer waat Euh, dëkk ci ci ci dignité ak euh, loo xamante ne ni dinañu mën a lu ñoom ak seen njaboot. Mm. waaye daanaka di wax rek dinañ redresser dinañ modifier dinañ rectifier. te defoo benn geste envers les locataires aussi dafay doy waar. gouvernement bi mu ngi wax boobu ak léegi ci programme mu 100000 logements sociaux yi loolu euh, ban saafara la mën a indi ci jàngoroy location gi ñu nemmeeku ci Sénégal. waaw euh, ay la yéwén euh, problème bi pour régler ko nag euh, finalement dans le long terme ou le moyen terme loolu rek la ndax tey bu ñu amee tali yu baax nit ñi léegi xaw nañoo démystifier dëkk fu sori tey boo xoolee Diamniadio périphérie Dakar bi Sébikotane foofu yëpp nit ñi léegi amatuñu jafe-jafe pour dëkk fa bu fekkee tali yi baax na ak péage bi kon dans le long terme loolu mooy équilibrer offre bi ak demande bi nit ñi bu ñu amee kër yu jàppandi dem dëkk fa dina loyer bi dina wàññeeku fii Dakar waaye lii problème bi mooy logement sociaux yooyu sociaux la ci tur rek waaye prix yañ fay joxe tey borom bitigu mbagg bi jaaykatu caaf bi commerçant bu ndaw bi ki nga xam ne salaire am eggul fenn fi munu ci am ndax buñ ne la quinze millions la jëm vingt euh, loolu du ñëpp ko mën a am donc il faudrait que ñu xoolaat prix yi xool aussi mode d'attribution yi parce que tey ku am ay fukki kër ñëwaat ne da ngaa soxla logement social. Hmm. xooluñ kër ya nga am identifié wuñ ko ñu joxaat la. li ñuy craindre rek mooy logements sociaux yooyu ñu am doole yi ñëw jëndaat ko defaat ko ay kër di ko luyewaat hmm. bu boobaa nag le problème restera entier kon il faut ñu xool ko bu baax logement social baax na waaye nañ xool bu baax ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo ñu jox leen ko ba pare nag suivre ko de façon rigoureuse ba ñu mën cee ba ñu mën cee jot. Hmm. yow yaay njiital association des locataires du Sénégal Elimane Sall Rewmi FM mu ngi lay gërëm bu baax. man maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di rafet rafetlu seen liggéey jërë ngeen jëf.